jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal di ñaanal a cheikh mohamadul muntaqa al xalifa sunu boroom yàggal ko te weral ko di ziyaara bu baax sénéralu cheikh ahmadou bamba mii nu di sëriñ ahmadou mbakke kara nóoray ni sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay ziyaara noo ngi lay ndokkeel noo ngi lay ñaanal di sant yàlla ci bis bu mag bi nga xam ne tey jii da koy dundal fii ci bërëb bii te boole nu ci noo ngi la ciy sant bu baax a baax sëriñ bi sàkku woon ci nun nu am ay bayit yu ñu jàllale rek ci jataay bi ne xam ngeen ne jataayu bisu tey bii day bis boo xam ne bu am taarix la ci yoonu murit ndax sëriñ bi day wax nu màggalal ko dem gi kon nun ñii di màggal ñibbisi gi di ko sargal ndax bu ñibbisiwutoon màggal gi du am kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nu sëriñ bi boolee ci ñi koy màggal tey mu lëkkoon liggéey bu yàgg boo xam ne liggéey na ko juróom-ñaari at dara yàquwul bàyyi ak njabootam tëj ay këram tàggoo ki dëkkaaleem wéet lool moom rek ci biir yi noonam amul ku koy rootal amul ku koy defal lenn ba mu am ndam yu rëy am yépp fenn fu nañu yóbbu ko fa béréb bu nañu yóbbu ko fa ba yàlla dogal bis bii tey di 11 novembre nga xam ne ci la wàcc ci béréb bii nga xam ne moo di euh, waaxu Moussasiri ci ndakaaru ndax lu wóor a wóor la ndax sëriñ bi mu ngi déparé Gabon le 30 17 mois 1902 nga xam ne mooy 30 octobre ci la départ waaye ci lu wóor euh, bato bi bu mu ñëwee Dahomey taxaw na ca poor ba nga xam ne moom la ñuy wax Grand Boubou waaye ginnaaw ba mu jógee fa Euh, ci le 3 11e mois ñëw taxaw fu ñuy wax Conakry ginnaaw bi mu jógee fa le 9 11e mois 1902 waaye mu agsi fii ci ndakaaru ci port Dakar bisub talaata la 11 le 11 novembre 1902 wala poog bisub wala tolloog fukki fan ci weeru Chaban ci 1320 ci la wàcc ci dëkk bi ndakaaru daal di wax nag ne نزعني الباقي من الأشكال بجاه ماح قد محى أشكالي nee na yàllaa ma rikkee ci mboolem lënt yi ak yu nëx yi ci darajey rasulullahi mi ma fegal nëx yi li hab bi jaahi al-azim kawni muaddaman inda jamii al kawn waaye yàlla nag ma defal ci sa daraja ju mag ji ma nekk ku ñuy màggal ci àdduna bi yépp moo tax àdduna bi yépp danañ maase di màggal Cheikh Ahmadou Bamba nafaani fi lbahri nafan azuma bi bihi fi abadin muazzama jariñ na ma ci géej ga njariñ lu màgg loo xam ne ca la mujjee nekk ku ñépp di màggal man euh, Cheikhul Xadim mu waxaatit ne waajahali ala al jahri wajahtu kulli lil ilahi wa rasul maa al kitaabi wa wajadtu xay rasul sama lépp yàlla laa ko jox ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak alquranul karim waaye nag lépp lu ma doon sàkku am naa ko radda li gayri jihati lgahaar suu an xawaahu layla aw nahaar lépp luy lor yàlla miy gahaar di aju note dàq na ko ba mu sori ma ak wépp lay ay woo xam ne guddi làmboo na ko mucc naa ko waaye wépp ay woo xam ne bëccëg làmboo na ko mucc naa ci daan na xubbii lahu wa lil rasuli wal kitaab asama umri min adan wa min atab bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg ko rasulullahi ak alquran fegal na ma ci sama dund lépp loo xam ne lor la wala lépp loo xam ne gàcca lam yax fa kawniya xalilan xibba lillahi wa rasuli lan usabba nee na nëbbuwul ci kenn ne maay xaritub yàlla maa di soppeem maay xaritub rasulullahi maa di soppeem baane li kulli man lahu saada kawniya maxsuuman bi xarxaada leer na ku am xel ku nekk ne man de dañu ma aar ci lépp loo xam ne lu xotti baax la naajaytuhu sinina waxdi waxda waliya anjaza taala waxda sëñ Tuubaa nee na at yu yàgg laa déyaaleeg suñu borom man képp ci moom dong waaye lu ma digoon def na ko moom yàlla naajaytuhu sinina waxdi waxda waliya anjaza taala waxda waaye yëmu ci mu waxit ne maddaliya sirral masuuna fil xilaam man qaada lil qur'aana afdal al kalaam wammatal na ma sirrul masuun waaye yëmu ci damaa wammatal alquraanul karim wax ne xidmatu xayral aalamiina adxalat fii kalkal yi asraaruhu fa daxalat jëmmi liggéey bi ma doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabbal na ci biir sama xol man Serigne Touba ay bóot yoo xam ne ak sama lammiñ lu feeñ la mu ne waaye ci biir liggéey boobu dama caa amee ne al ilmu wal amal wal yumnu maa salabaha lillah musli xamaa xam-xam ak jaamu yàlla ak yiiw yeeg barke yi yàlla roccal na ma ko jox ma ko man Ahmadou Bamba li salaba alqurana wal uluma annaafiatullah wa taalima sëñ Tuubaa nee na alquran ak xam-xam yu am njariñ ya lépp yàlla roccal na ma ko waaye salaba li tawxid wal fiq maa tasawufin man nuuruhu li lamaa moo ma wammatal xam-xamu tawxid waaye wammatal ma xam-xamu fiq waaye wammatal ma it lépp loo xam ne ngëneel la mu waxit na maddaliya llahu taala binnabi maa laa yaraahu aqrabun wa ajnabi nee na yàlla wammatal na ma ci rasulullahi loo xam ne nit du ma jege ba xam ko nit du ma sori ba xam ko ka gën a jege moo ko gën a umpale ka gën a sori moo ko gën a umpale faraxtu sayid albaraya bi xidam inda idaahu wa kafaani ma sadam bégloo naa rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ca biir noon ya waaye fegal na ma lépp loo xam ne ak yàq lool waaye dammat ni al xidmatu lil jundil kiram wa xaadillahu bi xayril maram liggéey bii ma doon liggéey boole na ma yàlla tabbal ma ci kuréelam yu mag ya waaye nag liggéey bi ma doon liggéey it suñu borom wamatal ma lépp ñu bëgg raddi anillahu wa rasulu wa ahlu badrin wa ataani suulu sëñ bi loolu laay wooyee euh, xuuf pa yàlla nee na ma jërëjëf rasulullahi nee na ma jërëjëf alquran nee na ma jërëjëf laa doon wut jot naa ci loolu ku ŋoor yàlla ŋoor rasulullahi ŋool alquran bàyyootoo dara te loolu la Sëriñ Tuubaa def raddi anillahu wa rasul wa ahlu badrin wa ataani suulu dammat ne dammat ne dammanillahu taala karama li ahli badrin sahzahu aram rama yàlla sama borom day boole na ma ci ahlu badrin waaye mu waxaat ne ajrul ilaahi wa jazaahul maaxi qad agnayaani anil armaaxi payug yàlla ak payug rasulullahi doy na ma sëkk walis ma jël ay gànnaay di xeexe tey jii firndeel na ko ba muy dem moom dong na te tey jii adduna bi yaatu na Afrique yaatu na ñi fi nekk yaatu na ana kan ana ban set tey moo taxawee ci kanam àdduna na maa ngi fàttaliku maa ngi célébrer bés bi sama maam ñibbisi woon te xurikuwul kaalam dañul bàyyiwul lam doon woote di ahmadu képp di ahmadu rek loolu kenn defu ko ku dul Cheikh Ahmadu Bamba xaadimu rasul kon wajaha lillahu alladi huwa al ilah maa sarrani bila gururin aw bila ay war nekku ci ba ma koy liggéeyal jommalu ma ko naxuma ko waaye bi may fayit dara di sutama diggante ak moom kon tanxaadu lii lil jannati llaahi l ujuur walastu anhu gayra xayrin la ajuur fii ba àjjana pay day dotti ko day neex lu jógati saa walla nga ca te lu ma séddaleetu kenn du ci jot moo tax Cheikh Ahmadou Mbacké Noreyni yow yaay solution waaye sëñ Gana jërëjëf léegi nag léegi kàddu yi day bëgg timis waaye waa azabu jannati ñooy décorer Cheikh ministre nee na nga ñëw jox leen ko ndax yow ci mouvement bi nga bokk yow yaay président d'honneur bu mouvement bi nee nañ nga ñëw jox ko ko yow monsieur le ministre Arona Koumando Fène Serigne Saliou Touré sa xarit ba yabal na sëñ Khadim Touré yabal na sëñ Abdoulaye Touré waaye yabal na sëñ Moustapha mi nga xamante ne ku ne xam ko ah le médiateur de la République Moussa Ali Madara Cissé yabal na sëñ Goro Diop sëñ Mëneeru yabal na sëñ Khalifa sëñ Mëneeru Njegeen yabal na sëñ xalifa te bi ànd na koog nun sa xarit ba Serigne Mbàkke yu fay délégation bii mu yabal bi mu fi fekkee sëñ Akassa Samb ci la bokk. bu ci la bu fi fekkee ah monsieur le man mii ci laa bokk ci délégation Alaaji Mbàkke yu sunduqa waaye suñ may sa sëy ci la bokk ndax moo waroon a teew fii waaye xam nga li ko kunta fil bahri fasirtu sunduqa amatani hatta dakhaltu barzaqa kunta fil bahri fasirtu شنقا شنقا فليعب عن كل سوء برزقا كنت في البحر فسرت صندقا صندقا يا من يلين كل تود شمال وسرت صندقا صندقا يا من يلين كل دود شمقا كنت في البحر فسرت صندقا صندقا كفيتني غير ما تجخجخا